yàlla na ko dajale moom borom bi tabaaraka wa taala sotti ko ci ummatu muhammad alayhi salaatu wassalaam nu dikkaat ak yéen ci jotaay yi nga xam ne faral nañ dikk ko ànd ak yéen léeg lekk bu nu gisee ni jot na nu fàttalante sunu biir nu àndoon ak yéen ay jotaay yoo xamoon ne amoon na ci ay bis yi nga xam ne moo jiitu màggal gi ngir di santale sëriñ bi boroomam ci lu aju ci xam-xam ci spirituel wàllum roox ndax ni ñu berndeele ay jëmm noonu la sëriñ bi soxla woon nu koy berndeele roox yi tey nag ñu duggaat ci weeru màgg weer woo xam ne képp koy ab jullit dañ ci békk dañ ci sigiréwu ngir feeñ ak sunub yonante muhammad alayhi salaatu wassalaam fukki fan ñaari njëkk yi nag nu koy dundal waaye ñu ñu tànn ci ay bis njëkk fukki fan ñaar ya ngir sunu mag ñi nekkoon ci réew mi te jëmbat sunuy xool bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seenu taxawaay ci dundal weer wii tey nag nu tànnoon ci kenn ci mag ñooñu di Serigne Abbas Sall Sëriñ Abbas di mag ci magi réew mi ak dundam mu joxoon ko boroomam akub yonentam liggéey ci lislaam liggéey boo xam ni moo waral aw turam des fi tey euh, Sëriñ Abbas moomu di mag ci magi réew mi liggéeyal lislaam lu yaatu ba tax aw turam des fi moom nag mu yar aw nit defar leen baaxal leen bam xam yàlla xam yonantam weer wi ñu nekk bu musaana tat bi daa amoon ay taxawaay yu mat yoo xam ne ay jéego yu yaatu la yum daan taxawe ba tax tey jii nu tànn bis bii jagleel ko ko bin ko ko jagleel nag dañooy wax ni mbir danga koy jox ku ko xam moo tax ñu dem ci biir këram tànn ci njabootam kenn ci ñooña ngir ñu waxtaane sëriñ Abbas kii taxawaayam ci bis bu mel nii ak ci mbindam ki ñu ko war a defal nag di sëriñ Modou Kama nekkatul ku ñuy présenté yaakaar naa biographie am jaaroon na fi ci jamonoy màggal ku topp waxtaan woowa di nga xam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 الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ورضي الله تعالى عن ساداتنا الصوفية أطباء القلوب وأساة الأفئدة موكي جروبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجلين دي نيو دي لين زيارة دي ziyaara أكونتانتي am ci jullit bu nekk ci bis yi bu teroo te mooy al ayyaamul muhammadiya bis la yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jagoo ngir ne weeram la woo xam ne ci la feeñ jamono sallallahu alayhi wa ala wa sahbi muy mbégte àdduna bi yëpp di mbégte jullit ñëpp comme ni ko kilifa yëpp waxee ci seeni way ñu koy feete itam feete wuñ bis ba rekk waaye fukki fan yi ko jiitu yépp dañ cay bég di ca kontaan di ca waxtaane jëmmam ju tedd ca sallallahu alayhi wa sallam amati meneen mbégte nag ñu dalal ñu ngir ñu waxtaane kenn ci magu réew mi sunu sëriñ la naam waaye ñépp a ko bokk muy borom xam-xam bu bay waaram ci wàll gi nga xam ne moom la ñuy waxtaane te mooy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa amaat geneen mbégte mooy ànd gi ñu koy ànd ak sunu mbokk sunu xarit Haji Moustapha Kamal Ka di nuyu ñi ci groupe bi ñëpp di leen ziar di fas yéene taaxirlu laaj yi incha allah. jërëjëf Serigne Modou ci nangu gi nga xam ne nangul nga ñu ko jotaay bi donte xam nañu si yitte ak sa jot gu manki ak li jotaay bi jamp jamp lépp bi ñu la ko waxee tegoo ci dara lu dul waaw eh, loolu nag ku la ko nangul danga koy jaajëfal ndax gis nañ sa yitte ji kawee ak sa bëgg tasaare xam-xam dama koy wax bis bu nekk rawatina fan yi bi ñu dégg yu bare bare bari ñu gis nga nekk pusam ngaax di boole diggante yi di ñaw te loolu rek mooy eh, taxawaayu boroomu xam-xam eh, bis bi nag xëy am na kuñ ko jagleel muy suñu Abbas Sall yittewoom gim yittewoo yonente bi sallallahu alayhi wa waaye laata ñuy dugg ci moom waxtaan wi dafay am laytaay laytaay bi nag moo nuy mën a dëgëral ngir ñu mën a àgg fi ñu jëm fi ñu jëm mooy taxawaayu Serigne Abbas ci bind ci tàgg ci yonente bi laata ñuy àgg ca loolu nag dañuy laaj suñu laaj bu njëkk mooy wàllum way yonente bi tàgg ko di ko bàkk euh, kañ la tàmbali ndax ci jamono sëriñ Abbas ñoom la wala ndekete am na lu jiitu ñu koy def laata ñoom di ñëw tagg yonent bi kañ la tàmbali waaye tamit jiw yi ji tagg yonent bi mooy lan maanaam euh, li nga xam ne mooy bu busuur bi euh, engrais yi ci maanaam niñ ko mën a waxee euh, mooy buñ ko bëggee xamle buñ ko bëggee xamal mooy lan jërëjëf sëñ Moustapha ci laytaay gi am na solo ndax mënul ñàkk sax la ñuy wax moo di ne eh, waxtaan boo ca jëmee lay tax ñu mën a dégg fa ñu jëm ndoo dooree ko dafay am solo lii nga xam ne nag moom la ñuy waxtaane ci sunu sëriñ Mawlaay Xaaji Abbas radiallahu anhu eh, mooy tagg yonent bi salaa kon baax na ñu xam tagg yonent bi fa mu ce que lu yonent gërëm la wala waxu ca dara est dafa am ay ngëneel yu ci am wala déet nan la ko yonent bi salaay salaam santire maanaam ñu koy tagg ak tagg ci boppam mooy lan tagg bokkut ak jay même ci arab sax euh, tagg euh, almadxu lañ koy wax jay nag moom mooy al itra moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di tere ku ko jey jey mooy ñu wax la jikko yoo amul wala ñu yéege la daraja yoo eggul comme li ñu wax isa wa qaalat an-nasaara al-masiixu bunullahi buñ ca jubloo gëm koo màggal itam isa amul daraja jooju te lool sax du daraja ju nit di egg waaw lu amul la moo tax yonent wax ne bu leen ma jey comme ni nga xam ne noonu la ñuy noonu la ñu doon jeyee Isa waaw eh, foofu nag am na sunu doomu bàjjen yi sax ñoo xam ne dañuy tarxis ci loolu jàpp na yonent même ci albani ci loolu lay sukkandiku ci ne yonent dafa mel ne bëggul ku koy tagg daal fekk yonent mosul tere ku ko tagg ku ko wax lu nekkul ci moom loolu lañuy loolu lay bañ moo tax bu sayri waxa ne ma daathu nasaara fi nabiyihimu waaw waxkum bi ma fii madxan fiihi waxtakimi kon jay moom yonent mosu ko bëgg daana ko tere lu bare bari waaye nag lépp loo xam ne ay jikkoom yu tedd la ak maqaamaam ju kawe te maqaamaam ju kawe kat nit mënu koo xam loo ca wax rek am na loo ca bàyyi wax koy maqaama yooyu nag ak dëggi dara darajaam loolu yonent daf ci daan bég di ci kontaan misaal ma mooy taggkatu yonent bi salaay salaam xaaruñ ba yonentu faatu ñuy doog a am waaye taggkat yi ñi nga tàmbali woon ca dundam sallallahu alayhi wa mu daan toog ñu koy bàkk muy bég di kontaan e, mën nañ koo xam ci xasaan ibn saabit ak tagg daan tagg yonent bi salaay salaam ba yonentu wax waxam juree jooja waaw uhjuhum wa ruuxul qudusi maak del daw ci del ci kaw yéeféeri di wone eh, tedd nga ak yonent bi salaay salaam ak seen doyadi ñoom ñu ko nangul ñoom ñu ko nangulul ak yëkkatiku lislaam ah, malaaka yi ànd ak yow ca loola kon tagg yonent bi du lu ndaw nooneet la ko ñeneen doon defee ci jamonoom abdullahi nu rawaaxa ak ñeneen ak ñeneen yonent daan ci bég di ci kontaan am beneen mbégte sax moo xam ne moo gën a fés mooy mbégte mi dox ci diggante yonent ak kaabum li zuhayr ca xasidaam booba nga xam ne ca lay waxee ne nubbitu anna rasulallahi aw adadi wal afwa inda rasulillahi e, mamuulu xasidaam bu gudd boo xam ne sax léeg-léeg sax nga gis man liir naa benn téere buy werante est-ce gi ca la bokkoon ci e, kaaba ko def wala wala eh, dañ ko ca dugal rek wax a nga tàmbale nu bétu wala déet waaye daal li ñëpp dëppoo moom mooy tagg na yonente bi ci kanam te yonente bi bég na te neexal na ko summi na yëreem solal ko ko waaw kon mbégtam yonente bi rek lañ doon wone foofu comme mbégtam yonente bi am na nag loola moo jur tagg yonente bi yi ñëw ci gannaawam yëpp kon tagg yonent bi mi ngi dooree ci jamono yonent bi salaay salaam am ay saxaaba yoo xam ne yàlla may na leen ci wàllu way ñu man ca lu bari daan ko jëmale nag ci seenub yonent sallallahu alayhi wa bokkoon na ci ñii ñu ñii ñu tudd waaw eh, loolu nag daan jur itam mbégtam yonent bi sallallahu alayhi mu ñu xam lool ci buñ koy tagg sallallahu alayhi wa sallam loolu itam ñu mën caa jàngate lu bare baree bari waaye ñu xam ne nag kon ñooñu ñooy meññeet yu njëkk yi nga xam ne ñoo meññi tagg yonent bi salaay salaam yi ñëw ci seen gannaaw ña ko meññi mooy lañ xamoon ca saxaaba ya dundoon ak yonent bi daan def loola ci kanamu yonent bi salaay salaam ci digg jàkka ji kon yenn wahabist yi nga xam ne ay boroomi xam-xam lañ di bind di wax ci wàllu tagg yonent bi sallallahu alayhi albani wax na ci tuuti ci téereem boobu di at tawassulu wal wasila euh, euh, at tawassulu anwaauhu ahkaamuhu waaw ci wàllu tagg yonent beeg yu mel noonu e, waaye lii moom lu wér la ci saxaaba yi te ay taggkatu yonent bi lañu woon sallallahu alayhi wasallam te yonent da daan bég ci seenu tagg kon ñii ñooy meññeet yu njëkk yi te ñii ñooy sukkandikukaayu ñiy tagg yonent bi ci gannaaw ndax xam na ne yonent day bég ci lu mel nii sallallahu alayhi wa sallam kon foofu mooy tàmbalikaayu tagg yonent bi ñooñu ñu tudd ci ñennet ci ñi daan tagg yonent bi saa sa ñooñu itam ñooy meññet yu njëkk yi ci wàllu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Moustapha euh, jërëjëf sëriñ ci leeral yu am solo yi nga indi ko ci Euh, ni tagg yonent bi sallallahu alayhi wa nekkul loo xam ni dafa yéex a ñëw ci jamono bi lislaam juddoo rek la tagg yonent bi tàmbali ñu koy wane ci wane ak mbaaxam wane ay jikkoom nga leeral li wuute tagg ak jay jay mooy wax la loo xam ne nekkut ci yow tagg nag mooy mbaax mbaax yi nekk ci yow ñi ko xamut te ko mën koo xam Euh, nga indi ci lenn ci ay saxaaba yoo xam ni daan nañ bind di tagg yonent bi ku ci mel ni Kaabu ku ci mel ni Xasaan ak ñeneen ak ñeneen euh, awaamil yi nga xam ni moo aju ci fànn bi fànn bii nga xam ne mooy tagg yonent bi naka la tasaaroo mooy fànn tagg yonent bi naka la tasaaroo ci monde l'islam waaye tamit euh, ñi nga xam ni dañuy bind tamit di tagg ci yonent bi fan lañ doon rootee ndax ci ñu njëkk ña wala tàggkat yu njëkk ya la walla ci ban wàll lañ jëlee jumtukaay bii ba suñ jon yàlla tey dañu nit ñi di bind di tagg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw si mosa eh, wàllum tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxee ci eh, tàmbalima lislaam noonu la àndeeg lislaam am saxaaba yu taxawoon di xeex ci seen làmmiñ di défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, li gënoon a ci seen wax ak seeni way mooy defendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ŋàññi képp koo xam ne day ŋàññi yonent bi sallallahu lu ci ëpp danañ wax jikko yonent bi sallallahu alayhi wa ak mbaaxam mel na la xasaan doon wax ne nabiyun ataana baada ya'sin wa fatratin min ar-rusli wal awsaanu fi l-ardi tu'badu fa amsaa siraajan mustaniiran wa haadiyan yeluuxu kama laaxa saqiilul muhannadu waaw xam ne day tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye li ëppoon ci fent yi mooy ngàññi yéeféer yi ak wone eh, fesug lislaam ak ne diine ju sell la ak yonent bi yonent bu tedd la sallallahu alayhi wa sallam eh, ñooñu nag bañ fi jógee <clears throat> comme li gënoon a ci seen liggéey mooy eh, eh, jaamaarloo ak ñeneen yi xeex la mais ci làmmiñ lañ koy jaaree ak way loolu daanaka bu fi jógee ba lislaam xaw a am doole dafay mel ne jaasi jooj ñu doon xeexee day xaw raaf ndax gisuñ ku ñuy xeexal ca loola loolu moo waral diggante bi tagg yonent bi saa saam nekk mbir boo xam ne mu xaw a mu xaw a raaf la ndax moom arme la woon ñu ko daan ñu ko daan xeexee eh, te yenn ci saxaaba yi jiite woon ko waaye nag am jamono boo xam ne ci lay feeñaat ah, nekk ab fànn boppam jamono jooju muy feeñ sax nekk fànn boppam du caagee ne day day feeñ rek daal nekk ab fànn déedéet dafay am sabab buy tax muy feeñ sabab boobu nag bu jàllee nit ñi dañ cey jaare tàmm mbir ma mu nekk luy wéy ba suñ joonu yàllay tey jamono ji nga xam ne ci la gën a fesaat feeñ fa nag feeñ gu biir jamono jooju moom la ñuy wax ci ëdëb asru duwalil mutataabia dañ ko wax asrul mamalik itam mooy réewi lislaam yi léegi nekkatul benn réew bu mag a mag jiite aalamul islaam yi bi yëpp waaye ay ay pàcc pàcc la mujj def réew mu ci yor drapeau bu lislaam rek ba mu yàgg balaa muy yàgg tuuti am lu la daaneel beneen réew daati jógaat booba bu doxee tuuti daanu beneen réew jógaat e, noonu lañ ko jàppee ñu tuddee ko asru duwalil mutataabia jamono jooju nag lislaam daf cee Eh, mos ci ay metti metti ak i jafe-jafe lu baree baree bari ba nit ñëpp nekk ci fitna ndax jamono jooju la eh, li ñii ñuy wax almaghul ci dugg ci réewi lislaam yi yàqate ci lu baree baree bari nit ñëpp nekk ci fitna al aalamul islaam yi di yëngatu ci boor bu nekk loolu nag waral ay yenneti nit làqatu ci seenu ruq loolu sax moo gën a fësalaat li nga xam ne moom mooy at tasawuful islaami yi seen seen ruq nekk fa nag di ñaan yàlla ak di way di tagg yonente sason di ko jàmbat jafe-jafe adduna yi loolu nag moo yaatu tuuti tuuti ba siiw am ñoo xam ne ci wàllu googu la lañuy seeni metit ci wàllu way lañ koy jaare waaye itam daan jàpp ne fàww lii faj saafara jàngoro jiñ nekkee mooy ñu tagg yonente saasa ak wax ko sunu jafe-jafey àdduna jamono jooju nag moo tombeek maanaam suñ ko mënee xayma mooy nekk jeexalukaayu sixième siècle jàpp septième siècle di jëm ci hijri maanaam mooy ay année six cent nangam ci gàddaay gi Euh, boobu nag la am ay nit yu yoo xam ne dañoo beru seeni ruq rek di jàmbat waaye di ko jàmbat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, loolu nag ba mu tasaaroo mu fisce ca ñoom ay nit ñoo xam ne xamee nañ leen loolu ñu xamee leen sax tagg yonent bi sallallahu alayhi ba léegi bu ñuy wax tagg yonent bi ci ñoom lañ koy jëmale xëy na ñoom ñëpp siiwuñu am na kenn rek ku ca siiw <coughs> mooy imam Busayri Muhammad ibnu Saïd mi nga xam ne moom moo taalif xasiida gi tudd Burda taalif itam geneen xasiida gu ñuy wax Hamziya ñaar yëpp mu def ko ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa xasiida ga nag am sabab bu ko sabab ba tax ñëpp fonk ko di ci barkeelu te moo di bu Busayri ci boppam feebar mu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa feebar boobu nag mu gént yonent bi raay ko mu wér ca loola ca eh, kiwam boobu nag mu tuddee xasida bi ñuy wax sax bur lañ ko waroon tuddee waaw mu tuddee ko burda tafaul ca burda ba nga xam ne moom la eh, yonent sànni woon kaab ca mu koy tagg sallallahu alayhi wa nit ñi nag ba ñu gisee loolu na ñu gis ne ah kon tagg yonent bi sallallahu day faj aajo day faj feebar ak i métit nit ñëpp nag daati sóobu yoon wowu nag seen lépp ñu def ko ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ne sax Busayri moom laata mu koy def am na beneen boroom xam ak taggkatu yonent koo xam ne moom moo ko jiitu ci loola ñu koy wax Yaxya bin Yusuf as-Sarsari moom moo njëkk a faatu sax euh, boroom burda waaye yàlla moom buy bind xabul léeg da koy bindal kenn donte ñu bari ñoo doon liggéey waaye am na ko xam ne daal tànn na ko ci biir siiwal ko àdduna bi yépp xam ko eh, tabaarakallahu waaye yaxya sarsari nag moom moo njëkkoon di tagg yonent bi sallallahu alayhi laata boroom bur borom sax di def xasiidaam jooju yaxya sarsari moomu moo wayoon yonent bi wayam bu neex wa محمد المبعوث للناس رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح لئن سبحت سم الجبال مجيبة لداود أو لان الحديد المصفح فإن الصخور الصم لانت بكفه وإن الحصى في كفه ليسبح وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح loolu ba xasida ja e, jeex e, ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ñëw ci gannaaw Busayri kon Busayri daanaka mënees na koo jàppee ci yennati wax yi walla wax yi ëpp mooy ki jiite raaya boobu moo tax ñu koy wax sultaanu e, almaadihin wala sultaanul muddaax ñi tagg yonent bi sax mooy seen kilifa kilifa googu nag moom nekkewu ko ci bariwaayu lu mu way wala neexaayu lu mu woy keneen mën naa ñëw ci gannaaw ëppale ko lu mu woy gën koo neexle waaye nag al fadlu lil mi comme ni ko arab di waxee loolu moom mooy li ko dab ndax diiwaanu Busayri sax boo xam ne da ko tagg yonentu lépp lépp loolu daanaka man xawma ko wala boo gisuma ko koo xam ah, diwaanam bi am tagg yonentu baa ngi ci ak tagg ay sëriñam comme moom sufiyanke la E, aboul abbas il mursi mi sëriñam tagg na ko tagg yu bëri tagg na sëti yonente bi salaa ai sallam ku ci mel ne e, sayida sukayna ak yeneeni e, kilifa yu mu tagg ak yeneen yoo xam day méted lu jamono jeeg ni nguur yi di tooñee ak yu bare bare bare waaye teewul daal moom mooy mu sabqi daal moom moo ko moom moo ko moom la ko yàlla jagleel ci wàllu googu te itam ñëpp daal di nangu loolu waaw ah, ñëpp daal nangu loolu kilifa goo gis rek buy wax dana ci tudd Busayri dana ci tudd Xasaan itam dana ci tudd Kaab ak ñu mel ne moom e, ña ñëw ci gannaaw Busayri nag biñ ñëwee xasiidaam gi mu tudd gi mu defar badii la tudd xam nga badii benn pàcc la ci euh, balaaxa arab waxin wu rafet lay jàngale euh, loolu nag ñoom dañ koo jëfandikoo ci seen way yi bu sayri moo ko njëkk a def waaw ah. euh, bi mu ko defee nag nit ñi daat koy topp badi badiiya mooy xasiida la joo xam ne faw day ëpp téeméeri bayit noonu lañ koy taarifee faw day ëpp téeméeri bayit waaye itam day nekk rawi bi day nekk miim maanaam miim yi lay doon miim lay jeexe buñ buñ kasra waaye itam ci tagg yonent bi lañ koy jëmale waaye itam bayit bu nekk day am lawnu min alwaanil badia waaw dana am jinaas wala mu am yeneen yu mel ne moom ci eh, muhassinaat badiiya yi loolu nag am ñeneen ñoo xam ne biñ ñëwee dañ ci doon roy Busayri ci ñooñ bokk na ca safiyu diin alxilli nga xam ne bu ñëwee même li bu sayri waxoon rek loolu la ñuy jéem a waxaat moom bi mu ñëwee safiyu diin alxilli daf ne ja in jita salaan fa salaan jiirati alalami waqra salaama ala urbin e, am na ñeneen ñu ñëw ci gannaaw ñu def même badiiya boobu bokk na ca aïcha albaauniya jigéen la ju mën a tagg yonente bi salaa sallam moo bind xasida jooju ديوان بتدو الفتح المبين في مدح الأمين خانو يوم تتق بديع دف بديعيان بچي ينتبه صلى الله عليه وسلم من كدور في حسن مطلع أقماري بذي سلمي أصبحت في زمرة العشاق كالعالمي خانو بيت بنك دي أم لون من ألوان البديع ني نك نيوم نيو نجك نك تيني تق يونتبي صلى الله عليه وسلم wa sallam mënoon naa ci tudd ñeneen ñoo xam ne ibnu Maatuq ak ak ak ñeneen ñu dul Busayri eh, ak ñeneen ñu def badi ci seen gannaaw tam eh, waaye ñëpp dangay ngay seetlu ne ay sufiyanke lañu eh, ndax tasawuf ak mahabbatu nabi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ànd duñu tàqalikoo jërëjëf Serigne Modou ci leeral yu am solo yi nga xam ne indi nga ko ci tagg yonante bi sallallahu alayhi wa muy loo xam ne am na cosaan ci diine ngir def nañ ko ci kanam yonent bi mu saxal ko ba noppi soññee ci tamit ndax euh, tagg nañ ko ci kanamam mu simbi mbubbam joxe euh, am na ñoo xam ne ràngal na leen yeneen i garaat ci tagg gi ak ni mu waxee woon xasaan ni leen dalal seen kaw ndax xot su ma ngi ànd ak yow roxol xot euh, kon ci noonu mu mel ni bi yonent bi dëddoo wane ginnaaw gisul nañ ko ci kaw suuf taal boobu dafa mel ne lu giim waaye fayut ay xalam fayut ngir Euh, saxaaba yi def nañ ay jéego yu yaatu ngir tasaara lislaam ba gisatuñu kuy ŋàññi yonante bi ak làmmiñam moo tax ñoom ñu meloon ni ñu teg xalima yi waaye biñ demee ba àddina jaxasoo jaxasoowaat mondu lislaam amaat problème daanaka jaxasoo gi bari ngir lislaam seenub état day toxo ci réew réew mu mel ni am nañu yittewoo woon euh, tawasul ñaan ci barke bi yonante bi ñu jëmee ko ci wàllum way nga tudd si ñu baree bari comme ni nga génnee imaamu Busayri mu gën ci ràññeeku yor seen raaya euh, ni nga ci indee Yaxya ibn Yusuf as-Sarsari waaye tamit Safiyuddin al-Hilli Aïcha al-Baghuniya ibnu Maqtuq ñoom ñëpp di tagg yonante bi euh, bu loolu jàllee mu mel ni relevé bi mooy mbir mi taxul mu yem foofu dafa mel ni dafa continuer ba agsi ci ay étapes yu xaw a jafe ba sunu réew Sénégal euh, bi mu ñëwee Sénégal nag daa mel ni mag ñu fi fekkoon di ay sufiyanke dañoo taw dañoo taw way yooyu dañ ko gatandu euh, xëy na bëgg nañu nga wax ci ñooñu waaye tamit nga wax ñi nga xam ne ay star lañ ci ay biddiw lañ ci ñoo ci gën a ràññeeku nga tuddal ñu ci ñenn ci sa gis-gis. waaw macha allah sëñ Moustapha <clears throat> ni nga ko waxee noonu la amee moo di ne Eh, wàllum tagg yonent bi salaay sallam ba mu ba taal ba tàkkaatee ci jamono yooyu ma nag daanaka xawuta fayaat ah, xawuta fayaat dafay continuer nag ci àdduna bi di dox saasu su nekk ngay gis ñoo xam ne ci loolu la ñuy xëy ci la gont ndax booba nag la tasawuf gën a tasaaroo moo taxit loola continuer itam eh, tasaaroo tagg yonent bi ak sopp ko ak waxtaane ko ak julli ci moom eh, mook tasawuf daanaka duñ mës a tàqali ko loolu moo tax nag mu def fii ne bu fi sufiyanke yi nekkul woon wahabi yu nii moom kenn yaakaaru ci ñoom ñuy tagg kenn waaw ah, eh, su boobaa kon feeg tasawuf mu ngi fi tagg yonent bi salaay salaam dafay kii moo tax it réew mën na ci ëppale meneen réew ma réew mu la gën a saf ci tasawuf moo lay gën a saf ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam réew mu la gën a am ab euh, nazaa wahabiya boo lay gën a néewle ñu tagg yonent bi sallallahu alayhi foofa waaw ah, boo doon wër ay wahabi yun yoo xam ne ñoo tagg yonent bi daanaka doo ci gis lu bari waaw ah, wala ngi ñoo day saxal gàmmu wala di wane ni des caa war a waxtaane yonent beeg mbaaxam ak dara darajaam ju kaweeg nangam aslan ñoom dañu jàpp ne nit ñi dañoo ëppal ci yonent bi sa ëppal koo xam ne warut waaw moom fu gën a saf rek ci moo lay gën a saf ci eh, yonent bi sallallahu ak sopp ko ak waxtaane ko ak di ko tagg ay way moo tax nag loolu sunu réew faw mu ràññeeku ci ngir ne réew la moo xam ne daanaka ñëpp mën nañoo wax ne ay sufiyanke lañu Ah, ñi fiy jullit ñëpp daanaka ay sufiyanke lañu eh, ñoo fi nekkoon démb ñoo fi nekk tey itam eh, kilifa yi nga xam ne nag ñoom lañu xam daanaka ñoom ñëpp ñu jël seen mbir jëmale ko ci googa wàll way nag daa nekk mbir moo xam ne daa bokkul ak wilaaya dara nit mën naa am wilaaya gu rëy rëy rëy ëppale fi sax wilaaya nag waaye nag mënul woy nag waaw ah, loolu mën naa nekk ndax wilaaya lu wilaaya mbirum yàlla la waaye way nag moom lu ñuy jàng la lu ñuy xam la lu ñuy man la lu ñuy peese la mbir mu ñuy peese la di ko defar nit mën na caa dàqale keneen man yambar mi sax mën naa dàqale keneen koo xam ne waliyu la ma dàq ko way ndax su boobaa e, way moom peese la rek ak e, e, jëfandikoo ay baat yu rafet séqul ak wilaaya dara waaye nag xolu képp koo xam ne ab sufiyanke nga nag yonent bi salaay salaam moo cay jolli moo cay nox-noxi ne kon mën nañoo comprendre ne bu ñëpp mënoon a way daanaka ñëpp ci way yonent bi salaay salaam rek la ñuy dëkk waaye am na ñoo xam ne nag même buñ ko mënta way ci mag ñi ñoom waxtaane nañ ko yàlla def nag sunu mag ñi daanaka ñépp wala ñi ci ëpp ëpp waaw eh, dañoo jekku woon way te mënoon a tagg te tagg yëpp ñu jëmale woon ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e, nga dale ko nag ci sunu xam-xam rek daanaka ah yëruñu téere yëpp te jekkuwuñu way ñëpp itam daanaka ñi jot a xam ak ñiñ jekku rek daanaka lañuy mën a tudd e, ñi daan tagg yonent bi sallallahu alayhi ci réew mi boo ko jëlee ca kaw dale ko ca Cheikh Omar el Fuutiyu radiyallahu taala anhu ci tagg yonent bi kenn la ci woon mënoon nañoo indi lu bare bare bari ci loo xam ne tagg na ko yonent bi salaay sallam e, e, ci way yu rafet te neex te wone cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa e, gannaaw Cheikh Omar ci ñu ñu xam Eh, gannaaw Cheikh Omar radiallahu taala anhu ci ñi ñu xam <clears throat> bokk na ci eh, Cheikh Sidil Haaji Malik radiallahu taala anhu ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñii ñëpp ay biddéew lañu yu fés ci tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu mam mam Khalifa ñess do mam Ablaye Dia ak Cheikh haj ibrahim ñess al kawla alkawlaxi ñi yeb ay biddéew lañu yu fess ci tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam haj mansur mom al haj Malik radiyallahu taala anhu sëñ mor Saasum doomu xaali ma jaxate kala sëriñ maajoor gumba siise ca ndar eh, ñii daal miin nañ seeni way donte nag am na ñoo xam ne xameesu leen te lool rek moo nekkoon seenub liggéey eh, bu yàggul rek ñu ma may ay eh, këyit ci ay way yu bari yoo xam ne mbokki fuuta yi ñoom ñoo ko def ci yonent bi sallallahu alayhi yu yéeme yéeme tabaarakallaahu nooneet ci ñooñu nga xam ne dañoo fésoon ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën nañ caa boole e, Serigne Abbas Sall e, ca Louga e, ku fés la ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñii daal suñu juumul ñooy ñi gën a fés ci suñu gis-gis ci tagg yonent bi te ku nekk ci ñoom ñu mën a waxtaane am mbindam man koo gis mu nekk lu tasaaroo ci mbokki taalibi yëpp tabaarakallaahu euh, jërëjëf sëriñ Modou ci leeral yu am solo yi nga xam ne indi nga ko muy am njàngale euh, ngir joxoñ nit ñi ñi nga xam ne ay bindkat lañ jëme ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa muy magi réew mi ginaaw bi ñu xamee ni tagg yonante bi nekk na lu nu saxal ci sunna ñu defee ko ci kanam yonante bi bi mu rogalaatee ba am ci si magi réew mi taxul ñoom ñu des ginnaaw nga indi ci ñenn ci ñoom ginnaaw bi ñu sóoboo ci yoonu tasawuf nga indi si Cheikh Omar Fouti indi Alxaaji Malik indi Cheikh Ahmad Bamba indi maam Khalifa Serigne Saasum Jaxate Serigne Ibrahima Niass waaye tamit indi ba indiwaale ki nga xam ni moo war a suñu jotaay tey muy Serigne Abbas xam naa dañuy desandi Serigne Abbas sëñ Abbas Sall moom Louga dañuy defandi ci moom euh, ay wayam ci way yonante bi sallallahu alayhi wasallam nga dikk ci waaye tamit ak relation bi nga xam ne dox na ci diggante ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci ak dundam moom sëñ Abbas euh, jërëjëf sëñ Moussa Ba xam naa loolu ñaari laaj la yoo xam ne dañ koy dajale mu nekk benn te mooy Eh, dundu sëñ Abbas radiallahu anhu dund ji nga xam ne dafa am relation ak yonent bi sallallahu alayhi ak tàbbi ci ay wayam moom eh, sëriñ boobu nga xam ne dañ koy wax ay ay cheikhu shaa'iru waaw sëriñ la mais waykat la sëriñ la wala sufiyanke la dafa am naza suufiya ci dundam ak waxam ak jëfam yëpp waaye nag dafa am nazaa adabiya itam ci ay wayam waaye waye rek nga xam ne adib dëgg moom moo wax waaye su àddoo wala mu digle wala mu xere nga xam ne sufiyanke moo fa nekk eh, moom nag eh, bokk na ci eh, ay relation mag yonent bi sallallahu alayhi mooy mu feeñee wala mu meññee ko ci ay nit yàlla yoo xam ne ñoom yonent bi salaay sallam rek moo nekkoon seen lépp seeni xol itam moo ko feese eh, ci mel ne yaayam mooy juróom mu jigéen soxna Faatu Wàdd lañ koy wax sëñ Abbas ñu ngi ko tuddee eh, xabrul umma Abdullahi ibnu Abbasin moom lañ ko tuddee baayam moo ko jox tur woowu waaye woy juróom bu jigéen moom muhammad la ko daan wax muhammad abbas ngir rek jeex ku mu jeex ci yonent bi salaay salaam moom woy juróom bu jigéen waaye itam baayam nekkoon koo xam ne daan gis yonent bi salaay salaam niki noonu maamam ji jur woy jigéen te ñu koy wax alxaaji ahmad wadd moom silmaxa la woon bët yi dafa muuru waaye nag du tàqalikoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola lu ñu xam la e, ci jàkka ja nga xam ne moom la nekkoon e, fële ca ndar ca kër e, sëñ Masamba Jéeri Jeng nga xam ne foofu la Cheikh Alhaaji Maalik njëkk lalee mbalaanum wazifa ca jàkka jooja jàkka jooja la alaaji Madu Wadd daan ji yonent bi sallallahu alayhi wa ci lu dul nelaw nga xam ne kon dafa juddu ci e, milieu boo xam ne milieu yonent bi sallallahu alayhi wa la ñu nàmpatal ko nag ci loola mu màggee ci loolu e, gimmee ci itam tabaarakallaahu loolu nag dafay am lu bare baree bari lu muy joué ci dundinu ki ñuy waxtaane euh, mu màgg nag jeex tàkk ci ñaari jëmm yi nga xam ne ñoo meññ ak njabootam maanaam euh, ak famem bi mu bokk ci ñaar yooyu lañu lañu nekkoon te mooy ci yonent bi sallallahu alayhi ak sëriñ bi Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu ngir li ñu nekk ay tijaan tax nag mu jeex ci ñaar ñooñu lépp lim wax ci ñaar ñooñu la ko séddale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci Cheikh Sidi Ahmad Tidiane tey nag lim wax ci ah, Cheikh Ahmad Tidiane yi du sunu jotaay waaye li mu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa Euh, mooy waxtaan wi tey euh, moom nag ci taggam euh, yonent bi sallallahu alayhi dafa jàpp ne mbir mi mi ngi ko tuddee sax diwaan yi mi ngi ko tuddee nafahaatun rabbaaniya ay upp yiw la yuy jóge ci yàlla rek di wàcc ci moom noonu la ko jàppee ay leer la yuy jóge ci yàlla di wàcc ci moom moo tax ay xasiiday secret la waaye ay xasiiday e, leer la yoo xam ne même ki koy jàng def ci yaakaar am njariñ yu tukkee ci loola muy jàng noonu ñëw ci moom ci zaahir ak ci baatin moom nag bu ñuy xool ay wayam dañ koy classé ci ñi dàqaway ci réew bi dañ koy classé itam ñi ëpp lu ñu woy ci réew mi ñaari ñaari ñaari eh, kii yooyu dañ ko koy tabbal mooy bokk na ci ñi dàqale woy gën a man gën a jékku woy ak rafetinam wayam eh, bokk itam ci ñi ëppale lu ñu lu ñu woy bu ñu jëwee ci départage nag maanaam part kii nag eh, faram fàcce nag li nga xam ne moom la def ci ay tagg jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy gis ne e, e, léeg-léeg sax munaasaba yii tax e, way wi di juddu moo lay won secret way wi moo lay won dayob way wi dinaa ci nettali benn mbir rek sëñ abbas radiallahu taala anhu te lii ki ma ko nettali moom mooy bëkk néegu sëñ li liñ koy wax ñu koy wax sëñ Mayoro Fall na ko yàlla yërëm mu ne dañoo ànd ak sëñ Abbas ñu jóge e, Kaolack e, jëm dakaar Dakar biñ agsee ba fu ñuy wax ndàngal ma ci boori e, Bambey am xiin woo xam ne dafa sàqi maanaam xiin wu bette woo xam ne dafa muur asamaan si jékki-jékki rek ab benn melxet daat ne tàyyi leer nañ bu jaaxal sax maanaam bu jaaxal ñi ñi ñi nekkoon ci yoon wi yëpp te ci oto lañ nekkoon waaye ci saa si rek sëñ Mayoro nee na mu ne ko Mayoro jot li ma këyit gi ak ak bi ca la bindee xasiidaam jooju nga xam dafa tàmbalee ci mandar boobu mu gisoon amin daxikil xamaami ara amaami sana barqin amif tarrat umaami nga xam ne ci niir woowu mu gisoon mu ne tàyyi rek ci saa si am na lum ca jàngatee ba jaare ca tagg yonente bi saa sallam bayit yoo xam ne ëpp na eh, daanaka téeméeri bayit la ak ak ak lu teg waaw أمن ضحك الغمام أرى أمامي سنا برق أم افترت أمامي أهيم بذا وقد سلب اختياري فلا أدري ورائي من أمامي وليلة أرمد بتنا نقاسي أوارات الصبابة والغرام فنرعى من طوالعها جبالا رواسي في فنون للهيام نبيت ودوننا ولها ووجدا سليم خطبه قطب العظام وساقينا يقوم بساق جد يعلننا مدام هوى مدامي وحادي عيسي أشواقي يغني بأبلغ فنه محيي الرمام ولم تخطأ صميم القلب مني سهام فوقت من أيدي رامي نونو با قصيدة دور دقشي يونتي صلى الله عليه وسلم آه، آه، هو العبد السبوق فليس إلا عليه مدار qaasidi zal maqaami ak yu bare bare bari nga gis ne xasida yi léeg-léeg li koy jur li koy li koy indi li koy sabab rek daf lay won dayob xasida gi waaw waaye nag mën nañoo tëdd ci yi nga xam ne tagg na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xasida joo xam ne moom lañu tuddee raaiya raaiya ngir ne raa la jeexe waaye xasida tawil la baxru tawil lañ ko tëggee آه، من كدب ري الظمآن في مدح السيد بني عدنان من كتاب يرنتي صلى الله عليه وسلم نيكي نونو من داف بنن قصيدة جو خامني تائية لنج كاي واخ يتام آه، ندخ ني تا لا جيخي رك مهر الحور العين fi madxi qaaidi lxurri almuhajjaliin noonet la defe jeneen qasida joo xam ne mi ngi ko tuddee jawaahirul badii fi madxi lxabibi shafii noonet la defe jeneen qasida yi may wax yëpp nag qasida bu ci nekk ëpp na ñaar téeméeri bayit wala ñetti téeméer eh, noonu la defee jawaahirul badii في مدح الحب بشفيع نون نعم، لا دافي جنن قصيده جوتو فتح القدير في مدح البشير النذير نون نعم، لا دافي تيميت جنن قصيده جوتو دو ميميا ا آه، آه، من كو تودي نهايه الاماني في مدح النبي العدناني اك يينين اك يينين قصيده يونيو يونيو يونيو يونيو تودول ا يو خامني ييب تي تاغ يونتبي صلى الله عليه وسلم la la la aju nga xam ne lépp léppi ay taggam boo ko boolee war naa mat fukki junniy bayit ak lu teg jërëjëf Serigne Modou ci leeral yu am solo yi nga xam ne indi nga ko ci Serigne Abbas ci sopp gi mu sopp yonente bi ndekete daf ko daf ko toppee fu sore sore ci ay cosaanam waaw ci cosaanam ci ay maamam ba egg ci moom moo tax taxawaay bii rek la mën a am eh, nga ñëw ci Eh, ay mbindam nga joxoon ci lenn mooy bi nga xamee ni jóge na Kaolack eh, xiin wi dab leen ci ndàngal ma ñëpp tiit moom xelam dem ci sangam ba mu jël xalima aku këyit sadd ay bay jëme ko ci moom bokk na ci xasida yi nga tudd muy jawahirul badia ak fatqul xadir rayu samaan nihayatul aman eh, nga xam ne ay xasida yu am solo la xëy na ci foofu lañuy dikk mooy nga waxtaanal ñu si mbindum Sëriñ Abbaas ci ay wayam ci mu jëme ci yonante bi amma ak euh, li nga xam ne investir na ko ci euh, ci ci tagg yonante bi sallallahu alayhi ci wàllum adab ci naka la ko investir ak wan yoon la ko jaarale moom Sëriñ Abbas euh, ci laaj boobu la dikk xam naa ba lañuy ñëw ci suñu laaju mujj insha allah waaw jërëjëf si Moustapha tagg yonante bi sallallahu alayhi wasallam moom ci sëñ Abbas tabia la tabia mooy loo xam ne mook sëriñ bi ñooy bokk di ànd loolu mooy tax tagg yi di bari eh, ak it itam di neex ndax lu ci ëpp ay mëdët lay doon du nekk mbir moo xam ne day jóge ci moom waaye ruuxaaniye lay àndal eh, joo xam ne masalam li nga xam ne wax nañ ko léegi nii ci yoon wi mu toll gisug melxat rek melxat ba am lum la jàngal ba nga jaare ci melxat bi amin daxikil xamaami ara amaami sana barqin amif tarrat umaami am ah, mu tàmbalee ci melxat bi ndax niir wi dafa maanaam xiin wi dafa dafa reetaan ma gis ci am melxat wala jigéen ju ñuy wax umaama moom moom muuñ jaaree ci loolu nag dugg ba tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ay xaal la yoo xam ne day dikkal waykat bi ci wàllu googu wax na itam ne ci e, taa'iya te mooy mahrul xuuril iin fi madxi qaa'idil gurril muhajjaliin yaa ne moom itam ëpp na ñetti téeméeri bayit ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa wutal ko ay bunt faslu bu nekk Eh, am lum cey jàngat ci yonent bi sallallahu alayhi wa eh, boo gisee sëñ abbas même burdam burdu kër sëñ abbas day mooy gën a gudd yeneen burdu yi burdu yu bari dañuy jàng burda bu bu sayri eh, ak mudar yu tuddee mudar daati daat cay daat cay yem su ko defee ay waxtaan topp ca ak yu mel noonu kër sëñ abbas nag seen burdu mooy dañuy jàng li nit ñiy jàng yëpp ba noppi door a tàmbali nag dugg ci xasaayidu sëñ bi ndax dafa am ñetti xasidaam yoo xam ne bu ci nekk daf ko wutal ay bunt yu toll ne ni burda toll maanaam fukki bunt lay doon fukki bunt yooyu nag bis bu nekk danañ ci way benn bunt ci ñetti xasidaam maanaam muy taa'iya bii ñu wax te mooy mahrul xuuril iin ak xasida bu ñuy wax raa'iya te mooy riyu dam aan fi di sayidi bani adnaan boobu itam fukki bunt la ci baxaru tawil la taa'iya bi nekk baxaru basit e, e, mu teg ca nihayatul amaani te mooy miimiya nga xam ne majzu ramalil musammat la e, yooyu itam daf ko def fukki bunt nga xam ne ñetti way yi yëpp dana ci way maanaam bis bu nekk ci burdu bi danañ way benn buntu ci burda waaye itam danañ way benn buntu ci taa'iya bu sëñ Abbas danañ way benn buntu ci raa'iya danañ wañ benn buntu ci nihayatul amaan yi taa iya bii nag di benn bi moom nettali na euh, sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Gueye moo ko nettali mu ne sëñ Abbas moom moo ko wax ne ko euh, xam nga nit buy bind ci siira day dellu ci li nga xam ne moom lañu moom la ñu euh, bind ci siira ci téere yi pour di ci wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax même xilaasu zahab muqaddima ji Cheikh Haaj Maalik radiallahu anhu day wax yi muy way ci yan téere la ko jëlee maanaam maalumaat yooyu fan la nekk téere sàngam ak téere sàngam ak téere sàngam ak téere sàngam yu mel noonu euh, loolu itam sëñ Abbas daf koy daf koy daf koy def waykat yëpp dañ koy def itam moo ne wax li nga xam ne moom moo nekk ci téere eh, waaye léeg-léeg nag am na ñoo xam ne ay xaal daleen dugg léeg ci seen yenn way yi moom wax na ci taa taaye bii ne moom eh, way na ko ba jeex delluwul ci téere lu dul benn yoon boo xam ne daf doon wax ci شمائل يونت بي صلى الله عليه وسلم جمال ظاهره يبدي لناظره على بواطنه اقوى الدلالات بنيو تي واخ ني يونت ميلون ازج اهدب اقنا كان ذا شنب ابها مفلج اسنان بريقات واكحل وانجل اكحل العينين ذا دعج وذا فم واسع بعد الفصل نين فوف دال بيم فاي وي دمنا خول شمائل بو ترمذي Eh, ci way wi yëpp yëpp benn yoon boobu la ci la ci la ci dellu ci téere nga xam yeneen yëpp ay waari daat la yoo xam ne daf koy dikkal mu koy sadd di ko def ci ay way naka noonu tamit xasida bi nga xam ne moom la ñuy wax mooy riyu zamaan fi marsi sayidi moom li sababoon tagg gi mooy benn soxnaam bu ñuy wax soxna rahmatullahi jaañ dafa tawat te tawat gi jaaxal docteur yi ci eh, wutal ko ak saafara waaye sëñ abbas radiallahu anhu am wëllëreem bu ñuy wax shérif tahar mauritanien la moom moo ñëw ne ko daa gént yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko waxal abbas su ma taggee eh, soxna si wér eh, loolu nag la sëñ Abbas bindee qasida bii di raaya laka alhamdu yaa dal arshi hamdan ala qadra wa jalla jalalan yashmalu albarra walbahra noonu tàmbali koo sant yàlla ba qasida e, ga jeex tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg yu kawe kawe e, loolu nag moom la moom la moom la def te mu toll ci ñetti téeméeri bayit ak lu teg wutal ko ay bunt noonu ba xasida ga jeexee ci la soxna si wér radiallahu anha eh, kon nga gis ne maanaam xasaayit yëpp ay xasaayit la yu kawe ci wàllu eh, rafetunu wayin ak yu mel noonu waaye nag yu kawe la itam ci xaal ak eh, jamono ak situation yi nga xam ne ci la ko bindee moo tax xasidaam joo gis buy jeexal ay ñaan yu bare bare bari daf ci daf ci ca xaatima ga maanaam lépp daanaka ay ñaan la waaw ay ñaan lay doon yaa akrama alxalqi maadihim wa xaadirihim wa man sayaati min axyaain wa amwaati maali sawaaka man arju makaarimahu خير الوسائل مقبول الشفاعات مددتها كيدي بالذل مبتهلا خذها إليك بتحنان وعطفات lam yaxfa xaaliya ankum ya rahimu bina inni daifun wa inni zu jinayaati ak noonu ba xasida ga jeex noonu la jeexale xasidaam yépp ndax ay xaal la yoo xam ne daf koy dikkal ci lay defee way wi ca tal la nag mu tagg ca yonente bi sallallahu alayhi wasallam wala book ca njeextal la mu ñaan ca ay soxlaam jëme ko ci tawasul ci yonente bi sallallahu alayhi moo tax da wax ne xasida yi képp koo xam ne dafa am aajo eh, bu góor góorgóorloo aajoom ja mën naa mën naa mën naa mën naa faju ci lu gaaw a gaaw a gaaw ndax yépp ci ay situation yu xaw a jafe la la ko amee la ko bindee itam ñaan ci ay soxlaam ci biir dëxëñ ko ci ci biir tagg yonent bi comme ni ñu misaale woon ne yonent bi sallallahu alayhi ca jamonoy jafe-jafe ba mbir mi fànn bi di feeñ ci mbir yu mel nii la woon noonu it la defee xasida yu bare bare bare yoo xam ne eh, yu mel noonu moom moo koy sabab moo tax da daan wax ne ca xasidaam ja fatxul qadir dafa wax ne yonent bi salaa sama cofeel ci moom moo ma dicté li ma koy way li ma koy tagg am laa alayya madixahu xubbi lahu arjaau qalbiya bil mahabbati tumla u ci joxeñ yu am solo yi nga xam ne joxeñ nga ñu ko ci mbindum Sëriñ Abbas euh, mu mel ni daanaka li ëpp ci wayam daf ko daan dëkkal li arab yi naan ashaar shoor way santiment la euh, du caagin dara neex rek nga def waaye way wi ëpp solo te mën a def jeexit ci nit ñi mooy li nga xam ne nit ki moo ko sentir mel ni deretam moo ko laaj rek mu def ko euh, te Sëriñ Abbas daanaka mbindam yu bare bari soo xoolee ci la dikkee ba ni ko yonent bi di joxe ndigal ni ko soo ma neel neel neel abbas su ma wayee eh, soxna si dina jug ci tawat jooju mu am solo loolu nag ndax tamit loolu daf ñuy gën a wan ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy wax ni ba mu génne àddina la jeex la mbir yëpp jeex loolu da leen wedam loo ndax saa su nekke rek ñuy gis ay jeexit yoo xam ni mu ngi koy jëflante ñi nekk ci kaw suuf tey Euh, laaj bi ci topp laata bu mujj bi mooy eh, majaal bi ñu doon waxtaane ci fan woy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, sëriñ Abbas bi mu dikkee lan lu bees la ci yokk loo xam ni ñëkk jiitu woon defuñ ko ci woon maanaam ndax dolli na ci lu bees loo xam ni laaf na ko ci lu wuuteeg loo xam ni wala lu ci manqué woon lu luñ nuru ni maanaam dolli gi mu ko ci loolu tax na mbir mi gën a taaroo waaw sëñ Moustapha euh, ci wàllu ndollent yi nga xam ne dañ koy seetlu ci wayu ñu mujj ñi te loolu sax tabia la maanaam waaye moom ña jiitu ñi mujj danañ ci def ay tafannun yoo xam ne amul woon ca ña jiitu booy xool sax ci li ñuy tuddee al adabul andalusi ci wàllu adab ñoom yokk nañ ci yu bare bare bare yi nga yi ñuy tuddee ay tashtir ak taxmiis ak E yu mel noonu yooyu amul woon ci way gannaaw gi la xew mooy nga fekkoon ku way aw way e, way boo gis rek ñaari satar la daan doon satar gi la ñuy tuddee sadr beneen bi lañuy tuddee ajju loolu moo daan way waaye dem ba mujj jamono waykat yu mujj yi daal di tàmbali tax taxmiis fekk wayu jàmbur boo xam ne ñaari satar la ñu yokk ci yeneen ñett muy juróom mu nekk juróomi satar nga xam ne ñeent lay doon ak benn boo xam ne mooy nekk ci suuf mooy mottali noonu la ko ñu bari defee ci burda eh, ak yu mel noonu eh, tafsir yi tam dañ koy dañ koy def ci mujj gi la mooy fekk baytub jàmbur nga xaaj ko jël genn wàll gi mottalil ko ko jël maanaam nga jël sadroom mottali ko sa sa ajju bopp def sa sadru bopp mottali ko ajzam bi nga xam ne moom la amul waaw noonu noonu ba kii jeex kon nga gis ne way moom noonu lay demee mooy ne ña jiitu suñu woyee ba noppi ñi mujj danañ ci def ay ay coppite ak i rafetal yoo xam ne te fan nun lañ koy tuddee e, ngir wone seen bopp itam ci jekku goo xam ne jekku nañ ko li nga xam ne moom mooy fànnu way waaye loolu nag jëmalewul ko ci lenn lu dul tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e, sëñ abbas nag anhu bi xukmi taaxuri wala bi xukmil maanaam eh, ci atte mujj gi mu bokk ci ki eh, kilifa yi nga xam ne ñoo ñoo mujj jamono eh, tax na danañ seetlu ci kiwam yu bare bari yoo xam ne amul woon ci la jiitu booy xool li muy utilise ci ay muhassinaat badiiya ak li muy tafannun ci wàllu balaaxa ak yu mel noonu doo koy faral di ji ci ña jiitu ci ña jiitu woon léeg-léeg itam mu utiliser ay eh, doxalin ci way boo xam ne amul woon ci li ko jiitu dinaa ci joxe benn misaal rek wala ñaar eh, téere bii ma wàcce léegi te mooy jawahirul badii fi tawassuli ila allahi al badii fi madhi al ngi ko tagg yonente bi sallallahu alif ba yaa maanaam alif eh, ab xasiida boppam la gu mat ñu jël xarful noonu ba mat taa ba mat saa ba mat jiim noonu ba mat ba ba yaa kon boo boole yëpp day nekk ñetti téeméeri bayit ak euh, lu teg xamu nuñ koy conté daal maanaam bayit bu nekk wala xaraf bu nekk ñu def ci fukki way ak ñeent ak ñett ba muy vingt huit ak boo calcul dama la jox trois cent et quelque ci ay bayit trois cent trent sept xaw ma yu mel noonu ndax moom xarfu yaa kese lay def fukki way ak ñeent mais yeneen xaraf yëpp fukki fukki bayit la koy def ak ñett loolu nag xisaab bi tax mu xisaab ko noonu moom moo ko xam te ñàkkul ne am na lu làqu ci ci ci biir loolu waaye li nga xam ne moom mooy coppite gi nga xam ne moom moo ci amul woon mooy ni mu doxalee xaraf yi boo xoolee ci xarful alif wala ci bayit boo jël ci bayit yi moom xaraf bu mu mënti doon xaraf bi day nekk ci tàmbalima sadr gi maanaam way wi xaaj bu njëkk bi tàmbalima ga xaraf bi lay tàmbalee beneen xaaju ñaareel bi xaraf bi lay tàmbalee moom lay jeexee kon xaraf bi nga xam ne moom lañuy la wayee way wi tey day am ñetti day ñëw ñetti yoon day ñëw ci tàmbalima bi ak ci digg bi ak ci njeextal li masalan euh, بوني أل القلب من داء الغرام شفاء أوارات أشواق لها برحاء دا غاي الف لا الف لا كيوي الف لا أبيت أراعي راسيات طوالعا أسير هوى يزكي جذاه حراء أطوف حول الغار معنى متيما أحيي به مأوى عليه ثناء yëpp alif lay jeex boo jëloon ci baa da ngay wax ne baral qalba baariihi liyam la ahu xubba barian min axyaarin li xayril wara sabba waaw ak yu yu baree bare boo jëmoon ci taa noonu la boo jëmoon ci saa بوجمون jëmoon ci jiim jarixul hawa min sahmihi almutalajliji jara damcuhu min fatxi xaddin muballiji jala anhu طال فيه اكتتامه جوالب حزن فادح ومبلج نون لكوي نون لكوي دفي با جيم بوب جيخ مجلحا حكمت لاهل الشوق والحق اربحوا حكيما فشرع الحق ما هو ارسخ نون بام جيخ مو xalawtu bi afkaari bi qalbi wa qaalibi xadiman li xayril xalqi wa huwa al mushayaxu noonu ba ba xaraf boobu daanu mu jël weneen noonu la ko defee ba xasida googu daanu noonu mu def jawaahirul badii noonu la def ci fatxul qadir jawaahirul badii baxru tawil la baxru bu jafee way waaye noonu la ci def waaye itam bee fatxul qadir baxrul kaamil la Euh, noonu it la ca def alif ba yaa kon am na ñaari xasiidaam yoo xam ne def na ci ab doxalin boo xam ne amul woon ci euh, waykat yi jiitu noonu it la def ci beneen xasiidaam boo xam ne nihaayatul yi lañ koy wax fii ma madxi nabil ne loolu ramal la bu ñu bu ñu dagg maanaam majzu ramal lañ koy tuddee nga xam ne tafee gu mujj gi ci baaxru ramal moom lañuy dagg waaye nag daf ko def lu ñuy tuddee tasmit tasmit bari na ci ci wayu kilifa yi itam eh, waaye yooyu ay tafannun yu yu yu yu bees la eh, ci wàllug way bokk na ci idaafa yi nga xam ne def na ko te mooy masalan eh, ramal joo xam ne majzu la te dañ koy def ñeenti ñeenti ñeenti satar lay doon ñeenteelu satar ba rek moom mooy xaafiye gi moom mooy jeexe miim ba mu jeex masalan danaan ayuha naimu hubba mustaiddan laka aw ba muxlisan lillahi tawba qabla tawtiiri sihaami من أتى مثقل حوبي باب ذي الطول لتوبي مستقيلا كل ذنبي يلقى ركنا لاعتصامي آه، سهري طول ليالي كاشف عن سر حالي مغرما مكسوف بالي في جنون وهيام آه، عاذلي مهلا فإني أنا ذاك المتجني أحجم الفرسان عني مدركي فوق المرامي noonu ba xasida ga jeex loolu def na ci junni bayit ci euh, wàll googu eh, nga gis ne bari na ay idaafaat xëy na waxtu mayuñu ko am na benn xasida bu ma doon wër léegi rek euh, boo xam ne ci biir te mooy amin daxikin gi nga xam ne ci boori ndàngal ma la ko la ko taarifee euh, waaye mi ngi ko àggale dakaar waaye ca biir am na lu muy wax ne yonent bi saa saa amul lenn loo xam ne nit dana ko laal mu jóge ci yàlla te du ne fa xaazinuha wa qaasimuha abuuhu li kulli alaalamina ala ala iqtisaami maanaam euh, foofu am benn benn tafannul bu bu kii ci wàllu euh, adab euh, moom la doon def xam nga qaasim doomu yonent bi la sallallahu waaye mu ne wa qaasimuha may yooyu ki koy séddale abuuhu loolu mooy lan maanaam abul qaasim yonent bi sallallahu alayhi yu mel noonu daf koy faral di def lu bare bare fa xaasinuha wa qaasimuha abuuhu maanaam nga xam ne dangay ngay xaw a réer sax ci way wi lan la bëgg a wax waaw fekk xaasim bi mu tuddoon dafa jël abuhu rek teg ko ca nga xam ne abul xaasim te mooy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam def na ko feneen ci wàllu alxazala ndax xazala dafay firi kéwal di firi jant waaw bu muy tagg yonent bi sallallahu wa sallam eh, nga xam ne dafay benn baat bi daf ko utilise dafay bàyyi baat bi ci boppam nga xam ne day wër baat bi utiliser ko ñaari yoon ci ci ni muy waxee nga xam ne dana tekki lii dana tekki leneen la ci def xëy na waxtu wi du man a kii pour ñu pour ñu mën a dugg foofu waaye bari nay idaafaat yoo xam ne yokk na ko indi ko ci yu bees yoo xam ne amul woon ci wayu njëkk ya loolu lépp ànd ak bariwaay gi nag ak neexaayu way ak muhassinaat badii yi dul jeex ci ay ci ay waxam daanaka bayit bu nekk mën nga caa gis lu mel noonu. jërëjëf Serigne Modou ci leeral yooyu nga xam ne indi nga ko ci Serigne Abbas ci bëgg yonante bi ba tax muy xool système bu gën a rafet ci mu ràbb ci way jëme ko ci moom nga xam ne dem na ba jël xaraf yi am ci euh, lango arab muy ñaar fukk juróom-ñett ñu koy xaruf abjadiya mu way ci yonante wi mooy xasida googu nga tudd léegi muy jawahirul badia xaraf wu nekk mu def ci fukki bayit ak ñett xëy na benn xaraf la ci def fukki bayit ak ñeent yaakaar naa bu ñu ko calculé day nekk 365 cent soixante loolu day tolloog bisi at mi xëy na nag xamuñu lu mu ci jublu waaye day tolloog bisi at mi bu fekkee ne ci daratu samsiya la mooy ni jant bi di wëree ci wàññib tubaab bi day tolloog loolu léeg-léeg lay nekk 366 te par ñeenti at lay doon par ñeenti at lay doon euh, beneen bi ci ni nga ko junjee mooy baxru ramal baxru ramal nag xëy na ñi nga xam ni ay woykat lañ xam nañ ko mooy faailatun faailatun faailatun faailatun faailatun faailatun mu dagg mujj ga système la boo xam tamit xëy na sopp yonante bi ak ni ko wayu dikkalee moo tax mu woyee ko noonu dañuy ñëw si suñu laaj bu mujj rek ginnaaw bi ñu tënkee waxtaan wi ndax Sëriñ Abbas kilifa la goo xam ne ak dundam mënuñu ko waxtaanee ci benn jotaay Euh, li ñuy dikk mooy euh, Serigne Abbas ak jeexam ci yonante bi ay taggam ci yonante bi maanaam ci ay ay abiyaatam nga indiw ñu ci lenn rek ñu tëjee ko jotaay bi di la sant bu baax nag ci turu mbooloo mi di la ñaanal suñu boroom tabaaraka wa laa defal la jàmmi diine jàmmi àddina jàmmi wér-gi-yaram jàmmi poos di yokk saw fan ba li nga naan a liggéeyal lislaam suñu boroom àggale ko di la ñaanal ci gàmm gi ñu jëm lépp yiw bu la ci kenn ëppale yàlla na ko yàlla matale ci jullit ñëpp nag euh, di la sant bu baax nag ci turu alxaq saabit di la ndokkeel bu baax tamit wasalaamaaleykum wa rahmatullah euh, waaw jërëjëf sëñ Moussa li <laughs> jeex ci lay gën a neex tabaarakallaahu <coughs> ñun li ñu dimbali sax man jàkka ja daanaka dama am lu ma liggéey balaa muy balaa burdu ba di jeex bu ñu paree ba noppi day am ay waxtaan yu ñu fa war a def ak firi yenn xasida sëñ abbas yi ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa ci zaawi sëñ abbas fii ci Louga waaye comme ni ma waxee rek kër sëñ abbas seen burdu day gën a yàgg ndax ñoom bu ñu burdoo ba noppi faaw ñu teg ci ñetti xasida yoo xam ne sëñ Abbas moom moo ko tagg yonente bi salaay salaam moo tax ba léegi nii a ngi dégg <laughs> jàkka ja ngi ñi ngi ñi ngi way ba léegi daanaka lañuy waaj a xaajar rek <laughs> bis bu nekk noonu lañ koy def ba ba e, bisu gàmm gi incha allah sëñ Abbas radiallahu anhu wone na bëggam yonente bi salaay salaam ci nu ne ci jëfe sunna ak di ca woote ak di xidmaal yonente te loolu la ñu xaadimul rasul maanaam eh, lii yàlla am wala li yonente am ci diineem ji nga jàpp ci mu jëm kanam eh, nga koy wax di ko def di ko di ko fésal eh, loolu nag <clears throat> xidma googu nag ci la nekkoon moom sëñ Abbas radiallahu taala mooy mag ñëpp itam mag ñëpp ci wàll googu ci jëfe sunna ak di am cofeel ci yonent bi ak di ko wone ci seeni way tabaarakallaahu e, bari na ay xasidaam yoo xam ne bayit yi def ci wax lu bare bare ci cofeelam ci yonent bi bokk na ci rek li ñu waxoon sànq am laa alayya madiixahu xubbi lahu arjaau qalbiya bil mahabbati tumla u e, ca xarful alif ga mu ne la ma digte bi bëgg yonent bi sallallahu moo ma digte li ma ko wax ba nga xam ne sama wàlle xol yépp dafa fees del ak cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na itam ci xarful ba ne baral qalba baariihi liyamla'ahu xubba bari'an min axyaarin li xayril wara sabba mu ne xol bi ki koy yett te mooy yàlla daf ko yett rek feesal ko ak cofeel ak mbëggeel waaye mbëggeel ak cofeel ci kan mu ne daf ko dañal ci ñépp waaw bari min axyaarin waaye nag li xayril wara sabba mu fees dell ci cofeel ci yonent bi sallallahu sama xol pour lool la pour yonent bi la jaaltu lahu qalbi mihaadan wa qaala bi jihaaran xadiman fi rawaaxi wa mudlaji maanaam maa ngi def sama xol mu nekk tëruwaayu yonent bi salaay salaam ma yaatal ko ca waaye sama bitti itam maa ngi ko def mu nekk ab jëmm joo xam ne dafay xidmaal yonent bi salaay salaam ci demam ak dikkam ci bëccëgam ak guddeem wax na ko feneen itam xalawtu bi afkaari bi qalbi wa qaala bi xadiman li xayril xalqi wa huwa al mushayaxu waaw sama xol ak sama xalaat ak sama bitt yépp maa ngi ko def mu nekk xadiman li xeyril xalqi muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xarful chiin itam sharibtu sharibtu mudaama al ishqi fa faxdara li aysha sharaban tahuran qabla an naarifa al gisha maanaam ba may naan sàngaras cofeel ci yonent bi bay mandi boobu tricher ci mbëggeel amagul woon ne moom day wane ne moom ba mu bëggee yonent bi yàgg na boobu bëggeel dëgg rek moo am moo <laughs> amul wax na itam ci xarfu shiin boobu shuriftu walakin laa yuraamu min alwara shabihiya mashruufan asamma bihi acha shuriftu dama sopp lool yonent waaye nag laa yuraamu minal bi shabihiya kenn mënta gis ku mel na man ci sopp yonent bi <laughs> ko man nag dama nekk ci yonent bi nag asamma bihi acha dama tëx mënuma dégg leneen lu dul yonent bi dama gumba mënuma xool leneen lu dul yonent bi wax na ci xarfu saad itam ne sabawtu lahu xubban qadiman mutayyaman sabiyan wa kahlan bil muna mutarabbisa ne man sama ngone ak sama màggat yëpp ñoo yem ci cofeel gi ma am ci yonent bi sallallahu alayhi wax na ne ganimati al uzma rasulu ganimati al uzma sama koom gi gën a mag ñu yaakaar lu ne la mu ne ar rasulu wa aluhu ganimati al uzma rasulu wa aluhu waaw bihi dama doyloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi kat ni'mal habibul muballighu ana buñ ko toppee daanaka dañuy jël lu bare bare ci waxtu wi kon ñu xam ne euh, euh, sëriñ bi Mawlana El Hadj radiallahu taala anhu ci waykat yonent bi ci réew mi yi gën mag ci la bokk yi gën a neexi woy ci la bokk yi gën a bari li ñu tagg yonent bi salaa salaam ci la bokk yi gën a am ndigal ci tagg gi ci la bokk itam ndax e, sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Gueye itam mos na nettali ne sëñ Abbas am na ay xaraf xarafi alxuraan yoo xam daf kaa jël di ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mel ne nuun wal qalami wa maa lu mel noonu itam gis naa ko ci xasiida ak sëriñ boo xam ne nuun wal qalami la sëñ am na xasiida goo xam la ko tëggee di ci way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e, نار المحبة لتنبلي أم ذي نور عرفاني إياه غاية ما يعنى به الفاني وهو المراد بقول الله جل جلاله فبي عرفوني جل من شاني أجمل نون أم أي آية يباري يوخن دفكو جل ديكو دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي صلى الله عليه وسلم Eh, moom moom Serigne Cheikh mu wax ne moo ko laaj ne ko doo def iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nag doo ci doo ko tagg doo ci def aw tagg mu ne lool nag ba ma am ci ndigal rek ba ba ma ci am ndigal kon nga xam ne léppam ci ay ndigal la tënku yàlla nañ ko yàlla fayal kenn la woon ci mag ñu baax ñu mag ñi ci ci réew mi soppee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, eh, yàlla nañu ko yàlla fayal Eh, réew mi yëpp nag war jàngat muy force nag ci eh, képp koo xam ne ku yittewoo mbiri mag ñi la da nga war a yittewoo ñépp rek xam ku nekk nga xam ca dara loo xam ne eh, mën nga ca jariñoo incha allahu ñu ngi jéggalu ñëpp ci kàddu yi di leen sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullah xam naa dañuy yeesalaat cant gi rek ci Serigne Modou di la ndokkeel bu baax di la mastawu coono tamit di ñaan yàlla waxtaan wi nga xam ne sotti nga ko fi yal na nu borom bi defal ak dégg ak jëriñu am na solo lool ndax lu bare bari umpoon na ci taxawaayu Serigne Abbas ci digganteem ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye kenn demul mu des wax dëgg yàlla bay na waaram ci cofeelam ci yonante bi eh, jëfal na ko waxal na ko waaye tamit eh, liggéeyal na ko ci lu bare bare bari yal na nu yàlla dimbali nu topp seenum saawo ba kañ ngeen di fekke wasalaamaaleykum wa rahmatullah